arbitre bi sifflé na arbitre sifflé na final poids léger bi Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin eh Diène Diouf atul Diène Diouf atul Kaw Gourdin Kaw Gourdin mbokk yi moo fi la gos Yéen Diouf lañ jàpp attention Yéen Diouf Kaw Gourdin Yéen Diouf Kaw Gourdin Kaw Gourdin li ngay bëre noonu baaxul Yéen Diouf Kaw Gourdin lam bi day neex dañoo ay bërekat la ñu ndeysaan Yéen Diouf Kaw Gourdin Yéen Diouf abi dafa sifle mu dox ci kaw may ko dara moom Kaw Gourdin waaye fekk na fa lu dëgër tamitam fekk na fa Kaaw Gourdin bu taxaw di ko xaar. Diène Diouf Kaaw yi bëre nañu bëre bu rafet Ouzin. ku nekk am na ngembu. Diène Diouf am na ñaari loxo ci ngemb Kaaw Gourdin am benn loxo ci ngemb. teq na ko. teq na ko daan na Diène Diouf. final poids léger ba Kaaw Gourdin jël na ko. Kaaw Gourdin ñaata yoon Kaw Gourdin a ngi noonu. Final poids lourd bi général Malika ak Émile François Gomis. Ousseyn Kaw Gourdin teg na final lese ko ñaari yoon. Kaw Gourdin daanaan la. doomu Dalifor